xamante ñoo ngi fii di waajal euh, euh, màggalu euh, Touba grand màggal de Touba édition 2021 kon incha allah ñu fas yéene leen dégtal lépp loo xamante ne moo ngi xew fii màggal bi te nag ñu woon Daaru Xuddoos fekk fi ay soxna macha allah ci seen waañ ñu fas yéene lan laaj incha allah naka la ñuy doxalee li nga xamante ne moom mooy wàccaay màggal gi ak naka la ñuy teeroo li nga xamante ne moom mooy gan yi macha allah yaay boo ñu ngi lay nuyu. leen di fay delloo ziar baax a baax. ah màggal gi mi ngi ni rek ñu koy tétu bu baax a baax muy neex rek nak waaw ñu dal ñoo ngi ni rek fi diko ko teertu bu baax a baax a gan yi giñ fekk ci itam antalo momit wax deug yalla muna téral gan muna téru gan waaw leppam doy ñam yi doy na naan gi doy na ji bari na waaw lepp ngi ne gañi dal magal gi dal ma sha allah neex na dal mom waaw. Eh, soxna ci ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Ndeye Fatou Mbaye madame Faye jóge ko ba fatik ngir fekke ci bis bi du nuyu nag waa Touba di nuyu sëñ Fallou njaay mi ñu fekk si ci kër gi ak soxnaam antaloo kooku mooy Awa Godoron euh, sëñ Fallou dafa am suñu borom kër ànd bu yàgg ñuy wa APR APR di fi daje ki tok ni sama wujju peccal gol ci su ñaari jëkkër ñoo bokk ak bay rak la ci man ndax sama jëkër moy mak ñu fi daje nak chaque année te buñ né màggal gi dess né une semaine ñun dañuy and ak fierté ndax kër gi kër talibé la kër bay fall suñ ñëw lépp suñ loxo lañ koy teg suñu dara du manké macha allah yéen xam ngeen ci dara parce que fi ngeen ñu koy ñaanal nag ñu koy teewee ay ati at moom mi boroom kër gu góor gi yàlla yokk xéewal gi yokk mën-mën gi ak sutura gi ci barke salaatul fatiha ci barke laa ilaha illallah borom màggal gi ñu fekk si leen ñaanal yii nit yàlla defal leen fan wu gudd ak wér gi yaram may leen ba nduyu seen liggéey maa ngi delloo ziar bu baax waaw loolu de dëgg la maañ moom ñoo ngi fi man moom c'est la première fois ma ñëw fii ci dal bi nii mais bi ma ñëwee gis naa fi jàmm gis naa fi ubbi daal macha allah lépp ngi fi dara manqué wu fi ñu ngi waajal màggal gi bu baax a baax a baax. kan yi ñoom ñu ngi ci yoon gi di ñëw euh, ana yan euh, kii nga xamante ne mooy yéen a yéen a ngi koy préparé ngir gan yi. waaw gan gan yaa ngi si yoon bi di ñëw ñoo ngi préparé lépp pour ñoom. lépp rek pour ñoom bàyyiwuñu dara waaye ginaar ba gileem bàyyiwuñu dara sëñ bee ko waxoon lu ñu am rek ñu sant santale ko yàlla macha allah waaw. mu ngi noonu kon euh, mbokk yi ñu seetaan ak déglu fii si la Dakar waa 221 gis ngeen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci wàññi macha allah di préparé li nga xamante ne ñooy benn yi xéewal yi kon macha allah du ñu def rek dugg ci biir incha allah seet si nga xamante ne moom mooy euh, Serigne Fallou ñu leen di fàttali ne ñu ngi fii nga xamante ne ni moom mooy euh, Daaru Xuddus ngir. toppal leen li nga xamante ne moom mooy événement yëpp yi nga xamante ne moom mooy xew ci grand magal de Touba édition 2021 kon incha allah ñu jéem a xool la ci dugg ci biir xool ki nga xamante moom mooy kilifa gi macha allah ñu xool incha allah naka la ñuy dundee li nga xamante ne moom mooy màggalu 2021. Euh, mbokk ñi seetaan ak déglu fii la Dakar waa 221 macha allah ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara comme ni leen ko waxee léegi léegi fekk nañ soxna yi fi nga xamante ne moom mooy ci biir waañ wi macha allah ñuy préparé li nga xamante ne moom mooy berne yi macha di préparer xéewal yi fas yéene eh, jëfandigal gi nga xamante ne macha allah kilifa gu tedd gu mag googu noonu mu Cheikh Anal Xadim eh, digle woon na ko kon macha allah ñu ñëwaat eh, fas yéene waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy kilifa kër gi muy Serigne fàllu waaw ñu ngi leen di fàttali ne ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy Daaru Xuddoos macha allah ngir toppal leen li nga xamante ne moom mooy programme mu màggal gi yëpp. lépp loo xamante ne moo ngi xew ci màggal bi leen Dakar waa 221 fas yéene nu ko dégtal incha allah kon euh, ñu jox kilifa gi mu sëñ Fallou ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di nuyu di nuyu seen mbokki déglukat yi ak seetaankat yi di leen suivre yëpp ci internet bi ci le Dakar waa 221 di leen sant di leen gërëm. Mm-hmm. waaw macha allah sëñ Fallou kon euh, du ñu defal dul dugg ci waxtaan bi mooy jamono ji gis nañ ne macha allah gan yi dafa mel ni ñoo ngi ñëw. ana yan eh, mbir mooy mbir yi nga xamante ne yéen a ngi koy fas yéene tertool nga xamante ne moom mooy gan yi war a waaw di dellu santaat yàlla bu baax di ñaan yàlla di ko ci ndigal di bàyyi ay tere di sant ku tedd ki seex Mountakha Mbacké Al Bachir yàlla yàggal ko fi loolu te wér eh, di sant taalibe yi comme ni ko seex Mouhamadou Lamine Bara daa waxee eh, bu ñu nee sant taalibe yi nag dañuy wax ne lu fi am taalibe yi te ñun ñooy taalibe yi kon war nañu amal euh, maanaam war nañuy gën a jëmmal ak di fàttaliku euh, kàddu yi euh, Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ibnu Serigne Fallou Mbacké yàlla na yàlla yokk ay leeram taas ñu ci barkeem xaare ko aljana yu kawe ak mboolem jullit boo xamante ne fekk na ko fa ak ña ko fa fekk ñëpp yëf yi nag wax dëgg yàlla li ñuy wax rek naan sëriñ bi mooy defar ay mbiram ba defaraale suñuy mbir di loo xamante ne kàddu yu dëggu yu am euh, ñun ñu gëm ko te at mu ne ñu gis ko ci li ñuy wax 18 euh, safar muy màggal gi nga xamante ne cheikh cheikh cheikh euh, cheikh ahmadou bamba xaadim rasul bi muy dem ci géej gi la ne sant leen leen ma sama borom kon damay wax ne rek kuy dem di tukki boo doon ci jamono ji ñu toll rek buñ ko ci nattoon nit di jëlub saagam di tukki Euh, am na lu ñu koy wax boo demee na nga góorgóorlu euh, na nga xool ci say nawle te jamono yooyu jëlut avion jëlut dara ak ba pare di la ñaanal yàlla na nga dellu si ak jàmm euh, jamono yooyu nag doon nekk jamono yu xat-xat mu am yàqin ak pastéef ci dem ga ak yàqiin goo xamante ne day day dem liggéeylu suñ borom dellu si loolu mu sukkandiku ci ba ne sant leen ma yàlla kon kooku li ma la wax sànq day defar suñuy mbir Euh, di defar ay mbir ñu am ci yàqin ndax ni mu amee woon yàqin ci ne day dem dellu si ñu noonu lañ amee yàqin ci ne euh, incha allahu rabbi fii ak fañ jëm fépp dañoo am yàqin ak lu wér wér loo xamante ne euh, maanaam am nañ ko ci ne lépp loo xamante ni dig nañu ko yàlla digg nañu ko yonent bi dig ñu ko mu mu ñëw fàttaliñu ko rek danañ danañ danañ danañ ci àgg incha allahu rabbi màggal gi nag comme ni ma koy waxee wax dëgg yàlla xéewale na lool Euh, gan ñi nag ñu ngi ñëw euh, dañuy ñaan yàlla ñu yokk ndax euh, wax dëgg yàlla dëkk bi moom boo ci dëkkee màggal jot kenn ku ci nekk foo mën a jëlee ji ay gan rek da nga ko fa jëlee ji ndax loolu lañu sant muy bernde jàng alxuraan jàng xasida sant le ko yàlla akub yonenteem ndax ñoom la doon liggéeyal kon loolu damay ñaax ñëpp rek ñu ñu tënku ci te bañ cee dugal leneen loo xamante ne borom màggal gi waxu ko woon loolu daal laa xam ne ñu ngi koy waaj nag bu baax a baax di sant gan ñi fi daje yëpp it nag ak ñi nga xamante ni ñi ngi ñëw yàlla teg leen ci yoonu jàmm delloo leen itam ci yoonu jàmm képp koo xamante ni ñëw nga fi itam euh, jàngoro joo fi indi yàlla na ko suñ borom saafara ña nga fekk it booy ñibbi it ña nga fekk it képp ku ci am jàngoro yàlla na ko suñ borom saafara ñi ngay fekk ci dëkk képp ku ci am jàngoro yàlla na ko suñ borom saafara ak jàngoro ju mën a doon muy jàngoro yi euh, Euh, maanaam tawat àdduna yi maanaam am koom wala yu demee noonu euh, wala jàngoroy xol wala jàngoroy euh, yaram loolu lépp daal ñoo ngi koy ñaan ci barkeb màggal gi. waaw kay toujours le Dakar waa 221 ñu ngi ci ñi nga xamante ne mooy soxna yi nekk ci waañ yi di gérer li nga xamante ne mooy élément bu ama am solo ci màggal gi di bernde soxna si ñu ngi lay nuyu. waa asalaamaaleykum maa ngi leen di fay di leen ziar ci bis bu tedd bi nga xam ne mooy bisu sëriñ Touba bi fas yéenee ñëw rek màggal màggal 18 safar safar bi. yéen ñi yi euh, ngeen nekk naka ngeen di dundee 18 safar. ah fas yéenee ànd ak ku tedd ki rek muy sunu sox si soxna si nga xam ne moom lañu ñu yàlla booleel muy doom ci soxna Bintu mu sëñ Mbacke Madina sëñ Mbacke Madina mu sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha mu Serigne Touba. at mu jot nag ñu di ko fi nekk moom ak waajuram ba yàlla jëlee ko moom mu jël relève bi moom doom ci at mu jot nag ñoo nekk ci waañ bi macha allah di bernde seede yàlla jumaa jànkay seede di defar ba mu baax di dalal gan ñi ndax bu nee de safar bu nee première safar la ñu commencé ñëw baax di waajal ndugg yi di waajal euh, daluwaay yi di waajal euh, bernde yi lañuy commencé di fi nekk ba yàlla def 18 safara ba gan ñëpp ñibbi ñu doog a am njiitalu yeewee ko delluwaat ci sunuy màkkaan kon nañu ci sant yàlla bu wér nag na li lépp liggéey Serigne Touba la moo nu xàllal moo ñu ñeneel ah olof Ndiané dafa wax ne ku jàmbaar amul ku ñu dimbali moo am te lii lépp ndimbalal suñu borom la ak Serigne Touba kon dañuy ñaan sa borom yàlla yàlla gën ñoo mën kat may kattan ak gudd fan ak wér buñ ko mënee di ko teewee su nekk ci barke Serigne Touba. fi ngeen nekk moom kër ban euh, Serigne la. ak euh, ñaata ci euh, xayma euh, ngeen di ngeen di togg yàpp yeeg nag yeeg yu ni mel. waaw fii nag mooy Daaru Xuddoos kër sëñ Modou safaa muy taawu sëriñ tuubaa ah yoroon nag taawam bu jigéen ñu koy wax soxna Bintu mu sëñ Mbacke Madina moom suñuy baay moo nekkoon taalibe sëñ Mbacke Madina suñuy baay nàmpatal ñu ci yoon wi ba indi ñu ci teg ñu ci loxoy soxna Bintu ñu nekk ci kër gi ba ñuy tuut tànk ba léegi. ba yàlla dogal ñu mën a gérer kër gi léegi ñu fas yéene nag ànd nañ ñu ko sunu waajur yi daan defee ñu ànd ca nekk ak ñoom ba liggéey kër ba ba ñuy no fekk ji leen te yàlla na yeex ah kon nag saa bu doom ju baax ji ni soxna Ndeye Mbacke ñu koy ñaanal gudd fan ak wér moom moo ne Dakar la dëkk waaye bu màggal bu njëkk gi ñëwee muy sañ moo sëñ sa Moustapha ji ci la ñuy commencé ñëw di saytu di waxtaan mu ñuy commencé defere bernde yi bu benn murit mer na taalibe yeb bég ah dem ba commencé lundi ba légui bu bu ma féké ni man ci li ñew ci sama loxo yóbbu naa lu ma 2 millions mo xamné marché la ko jaayé ba mu jeex ci ndugg ak ay ginar tay doyna ñaari nak ndax bu jënd na luma ñaar fukki junni ci jën depuis altiné maa ngi koy togg té tay doyna ñaari nak togg ci añ li ci dese nga nee ma di togg rër fas ko dalal gan té bu suba ma rey ñett nak te it kër gi rek mën na noo lekk benn cin waaye ja doomu aadama njaay yi nga xam ne ay taalibe leen te sëñ Tuubaa bernde la wax dañuy fas yéene toog ci mbedd mi ku ci sa wërsëg nekk rek ñu yàkkal la berndeel la ndax loolu lañ wax waaw parce que euh, mbiri sëñ Tuubaa mi mel noonu comme kon dañuy toog ci mbedd mi fii mooy yoon wi ku ñëw rek duñu la bàyyi nga dem dañ lay tibbal nga xéewlu jox la lu sedd nga naan amul xaaj amul seen amul ci kër gi laay dal boo fu dalul ñun dañoo bëgg ñu soñoon Touba gi ku fi ñëw ñun ngay dalal parce que borom kër gi loolu la xam loolu ñu loolu la ñu jàngal kon nag bu ñu reyee ñetti nag ñaari nag tey bernde ko gaa yi tey añ ak reer mu yem ci bis bi ñu reyee ñetti nag boole ci ay ginaar bu fekkoon ñun dong la ci kër gi benn nag bi rek doy nañu waaye doomu aadama njaay yi nga xam ne am na ñoo xam ne dañuy ñëw di màggal si amuñu daluwaay ñooñu la ñuy sóoraale fas yéene leen jàppale ñu xéewlu ndax kii moom bis bi bernde la wax ndax bis boo xam ne yomal na euh, dañ koy euh, dañ koy bernde dañ koy feete kon ñun ñi nekk ci kaw suuf buñ ñu ko dàq nañ ci gën a bernde looloo tax ñuy def loolu